nuyu mu ngi leen di fay mi ngi leen di fay bu wér internet bi internet bi global nag parabrise moo fi andi woon donc kii la àndal global parabrise jee asu sare tubarkalla masala at mu ne dama fi ñëw moo ma ñëwaat fi at mii moomee ngay nelaw nag waaye jooy naa ko rek ci bii nag ndax moomi sax su ne dafa doon jël ay affaire yu bëri di ci boole du dëgg moomi sekk sama xarit boobu tey joy naa ko yëg naa ko bu baax ci campagnat bi waaye asu mi ngi fi ak Gambia yi ma ci àndal. asalaamaaleykum. Ah, pare alaaji maa eh, eh, taxawal taxawal kii dafa bëgg publicité déglu ma expliqué la promotion lay ut. dem ma bàyyi ma. déglu ma déglu ma déglu ma. Eh, non amul sax dara lu muy wax lu kii dem bàyyi ma bàyyi sama loxo dama da ngay jël kuude chaque année dafay ñëw fii ci prison bi ah, ah xool détenu ànd ak Khadija ok donc Khadija Karo mi ngi nii xool leen ko ok ñii laa ànd ak Global ak Khadija jaa atu sare mi ngi ci ginnaaw ñoom ñoom dañuy participer chaque année may ñëw ci détenu yi fii nii moo fi duggee xale dañuy yuuxu ñuy jooy di jooy moo tax yaag miin naa fii daal daal chef yëpp samay xarit lañu di sant yàlla bu baax a baax di waa kontaan rek ndax man fii rek laay ñëw suba damay demaat ci ñoom si homme de tenue seen bopp suba foofu laa jëm ci ñoom bu ma demee Tëngéej ba pare incha allah waaw. dañu gis nga nga yàkkam ci def. waaw Mamadou Fadal laa la waatal Serigne Babacar rek laa gëm waxuma dara ku ma laaj sonal nga sa bopp ndax expliqué wu ma quoi que ce soit. ma ne man camp pénal bi ma ñëwoon ni dimbal détenu yi foofu laa yem. pare naa fecc naa ba dagg damay taali rek. merci beaucoup jaa ngeen. dafa coono yi lépp jàpp lan moo waral tey ci 8 mars bi nga ñëw fii camp pénal. waaw chaque année dañ koy defee xam nga ku ne xam na ni ñu nekk suñu euh, mbokk lañu. suñu xarit lañu suñu yaay suñu jigéen suñu lépp donc ñëw rek euh, chaque année taw comme chaque année rek parce que dafa tiis trop dafa doy waar boo duggee waaye da nga xam ne aussi yàlla moom tuddee noonu te nit ñi baax ko fi nekk fii du lu bon moo la fi dugal yàlla suñu borom mooy dogal dara am euh, yàlla ne ren wala jour sàngam lañ ci dugg yombul kenn man mi jom ma donc moo tax daal ñëw rek vraiment def moo def ko ah d'accord ñu gis ne coow da ko taw lan nga wax dara yàlla na jàmm yàgg coow loolu jeex na loolu kii la woon de dañ doon créé dañuy créé à ah, Singel moom moom mën na ko. mën na ko waaw waaw